227 12 12 salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi na def. ñu ngi lay ziar bu baax. 313 euh, digital. waaw yaa ngi en direct 313 digital. ok voilà maa ngi tudd euh, Jean Pierre Atepa Goudiaby. Jean Pierre Atepa Goudiaby bokkut ak Atepa mel ni mi mi doon médiation. non junior. Ah, bu ndaw waaw kay. c'est son homonyme. Ah, dëgg la dëgg la. ah mais c'est le même combat. dëgg la dëgg la. Euh, dama bëggoon participer tuuti ci émission bi. Mhm. ok voilà man euh, dafa am benn affaire bu ndaw bu ma bëgg a fàttaliku sénégalais yi. Mhm. Euh, ci problème Macky ak Ousmane Sonko. Mhm. xeex yàgg na de du tay de. oui. du gone mënu koo àtte. donc ñun. dafa yàlla dafa def ñu fekkee ci tuuti. après 2012 2013. oui. bu Pastef di commencé di lancé si réseaux sociaux yi. ñun ñoo mhm. ko fekkee woon jamonoy euh, jamonoy zero facebook point com. oui donc c' était gratuit avec les téléphones. xam naa ko xam naa ko. boobu yoru woon dara bon dañ si doon doon jàllale les message et trucs comme foofu la coow li jëkk a commencé. Mhm. foofu la Macky saal njëkk a dagg connexion zéro connexion Facebook gratuite. oui moo ñu ko xam parce que suñu message yi fa lañ ko doon jàllale. Mhm. Euh, yàkkal ñu internet. Mhm. di ñu xas di ñu wax lu ne. oui. tey damay toog di ku rek ma ne voilà euh, Ousmane ko tey su demee bay am doole ba taxaw jaakaarloo ak Macky Sall. Mhm. Macky Sall moo ko liggéey. oui. Macky Sall moo ko liggéey. Mhm. waaw parce que gone yu bari dañ ko mere woon ci loolu. ñun tey heure bi war na fekk ñu dépassé fii ci technologie. oui Macky Sall ñu xañ lu bari sur la technologie. lu si bëri bëri bëri boo xoolee côté Afrique ñu si bëri. Mhm. dañoo xaw a raw tuuti. sur la technologie. Mhm. regarde là woo ne les métaverse. xoolal 5G mhm. fu mu toll bu ñun ba léegi mënuñu koo am Sénégal. on est ñu ngi ci 4G ba tey. ndax lépp Macky Sall la. il veut tout contrôler le pays. bëggul bàyyi kenn dara. dara la bàyyilul kenn. du jeunesse bi du mag ñi du kenn il contrôle tout parce que wóolul kenn. su demee bay pas de mu xam na xam na lu tax mu jiñ ko de escroc. xam na ko. Mm-hmm. mais tey mi ngi nii ba mu jaaxlee kan la woo du Atépa la woo. Atépa de. Atépa la pour mu jàppale ko. Mm-hmm. fu mu mujjee. pour dire vrai que ni ñun Sénégal amuñu propre président. Mm-hmm. amuñu président. oui Macky Sall c'est pas un président c'est un dictateur. mm def lu ko neex yor yatam di caw ku ko saf. Mhm. looloo am Sénégal. d'accord te ni woon désolé man damay xool sax xale yi damay rus sax quoi ñun Sénégal lan la ñuy jàng jàng pourquoi. oui soo demee ay droit conseil constitutionnel lan lañ fay jàng. des textes yi nga xam ne chaque jour kay dañ koy rectifier rek di rectifier rek kii bu waxee. lii kii wax xanaa xanaa du texte bu ñu bind mhm. kese. ñun ñu mhm. war a topp ci constitution topp suñuy loi jëmale réew mi kanam mais mhm. noonu tout le temps les mêmes mhm. problème waaye ñun lu ñu jàng anamu ak li ñuy jàng quoi bu fekkee dañuy sukkandiku ci ay textes pour mën a doxal suñu réew mais bu fekkee textes yi ñu ngi fiy tege te topp ñu textes yi kon à quoi sert école yi di ibbi tëj école yi ku nekk dem business business ab amul sens fayal sa doom muy jàng ba pare bu jàngee ba pare bu toogee wax kii ne ko da ngay fen kii ne ko déedéet du nii nii la kii nee na neel nii la nii la waa léegi ñun lan moo tax ñu jàng kon mhm. amul sens oui alors Atépa boo jàngee kay pour pour ah sa sa sa turandoo Pierre euh, bi ay fan ci ginnaaw amoon na polémique amoon na polémique bu amoon par rapport ak waxtaan bu ñu doon wax entre Ousmane Sonko ak président Macky Sall ba ñu doon wax ni moom moo ko dox par rapport ak yooyu ñu doon wax ni ba ñenn sax génn di wax ni Ousmane Sonko kat euh, mi ngi waxtaan ci suuf ak président Macky Sall yan rek nga mën indi ci loolu. moo gars yi dañoo xamul rek. Mhm. Ousmane Sonko waxtaanul ak benn Macky Sall. amul benn benn benn proposition bu Ousmane Sonko jël wax ko Macky Sall. Mhm. c'est facile Ousmane Sonko joxoñ na. joxoom jomaay oui comprendre nga. Mhm. Ousmane Sonko soxlawul présidence soxlawul dara soxlawul liberté ñoom ñoo ko tëj. Mhm. loolu la wax ak Atépa. oui lu mu ko wax. waaw mooy liberal xale yu mu tëj. Mhm. point. xale yi defuñu dara. point kanta moom soxlawul médiation. moom ñu moom moo ko fa dugal. moom xam na nan la koy génnee. oui euh, bu fekkee pour élection présidentielle. Mhm. joxoon na jox jomaay jomaay a ngi nii. quel est le lan moo xew dara xewul de. moom moo ne dafa bëgg dafa bëgg apaiser réew mi. Mhm. tànn na ñu mu war a libérer ak ñu ñu génnee leen. Mhm. quel est le problème. et pourtant si si jamono boobu ñenn ci homme politique yi man su ko nekkul sa si lii. ci xanaa gars yi dañoo xamul sonko yéen. dellu la ci ginnaaw encore ngeen dégluwaat sonko bu baax. et pourtant ci jamono boobu waxantu Pierre Sénégal ñoo fi rek mais Sonko dépassé na lii. Pierre pourtant ci jamono boobu gisoon na ñenn homme politique yi tàmbali génn di wax ne Ousmane bi nga xam ne euh, moom moo doon euh, daanaka ne ci logique gu gàtt sa ak yeneen moom moo nekk actuellement di waxtaan ci suuf ak euh, président de la république ak libération de détenus politiques yi am na ñu jàppoon ne. waxtaan na moo tax de libération yi di am. loolu booy bi loolu bi moo koy wax nu mu tudd ça le gosse et, et comment il s'appelle Barthélémy Khalifa Sall te tu sais. Uh-huh. tu gis nga ñooñu dañoo yërëmul seen bopp man man am na lu nga xam ne sénégalais dañ ko xaw a dañ ko xaw a fàtte tuuti. Uh-huh. gis nga Macky Sall lépp lu ko wër tout ce qui tourne tour de lui il bouffe tout. Uh-huh. jëlal euh, pees ana pees pees kat moo ci dundati kat moo ci dundati. pees ñu ngi ci euh, biir benn dem kee nu mu tudd sax euh, tanoor suul nañ ko. ana Aminata ah. Eh. ana Khalifa ana Karim. maanaam moom lu ko wër yëpp bëggun dara dara dara sotti Sonko rek moo ko dese woon. Mm-hmm. Sonko nag may ko plan B point. Mm-hmm. fu mu nekk nii looloo tax élection bi yeeg ak kook yëpp pour jéem a dugalaat Karim pour jéem a taf kenn kese la du dara. Mm-hmm. waaw mais képp ku ci wax si diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall da nga xamul rek. d'accord ku xam sonkoo dëgg. ku xam Sonko dëgg dëgg Ousmane Sonko bu Pastef mhm. non boo <laughs> boo toogee ci télé di wax Ousmane Sonko day médiation Macky Sall rek war ngaa xoolal sa bopp. naan nan day waxtaan waxtaan ak suuf. no non non no loolu ay waxu politicien la ay affaire PS yeeg ak PDS yeeg ñoom ñooy dund loolu. Mhm. Ousmane Sonko Ousmane Sonko c'est c'est un leader ba nga xam ne exceptionnel Afrique benn la fi dootul amati. c'est fini. alors incident bi am la dernière fois. ci manifestation bu opposition ba ñenn di wax ni sax ñenn ñu bokk ci taxaw ñoom ñoo ko commandité ban jàngat nga def ci incident boobu mais moom laa laa wax nag mooy mooy mooy mooy mooy li ma la wax rek PS ak PDS dañoo bëgg a delloowaat ci jamono yi quatre-vingt mhm. boobu la ñu bëgg indiwaat affaire de gang sanga affaire de banditisme yooyu moom mhm. booy battali ni rek mais eh, Sénégal fii kan nga gis politicien bi nga xam ne il a trente-deux gardes du si buntu kër gi kese mhm. rek mi kese moo ko am Dakar oui. lan lay doyee yooyu yëpp. Mhm. loolu pour lan la. ay ngandi boo këram ay ngandi nit plus de trente et quelques gardiens gardiens ci buntu kër gi ñooñu pourquoi. Mhm. kooku narul jàmm. lan lay défendre lan lay sécurité boppam lan la lu xew Barthélémy il est mhm. parce que tàmm na ko quoi affaire de bu affaire de PS ak PDS la ñoom xam ne dañ koy tàpp dañ koy dañ see yàgg loolu. raa xeex fii ay complot fii dóor. loolu bokkul ci solution loolu bokkul ci solution PASTEF. Mhm. bokkul ci projet PASTEF. PASTEF projet unique la c'est fini en Afrique dootul la mhm. waaw c'est ça. jërëjëf Pierre Pierre Goudiaby Atepa merci beaucoup. oui allô. merci beaucoup. allez merci beaucoup merci beaucoup. jërëjëf 313 digital beaucoup. jërëjëf ok. voilà mi ngi noonu. moo itam leeral yi am na solo mën ngeen continuer yéen itam di euh, woote au 77 227 12 12 bu ko defee euh, yéen itam ngeen mën a dugg